bi sifflé na Moussa Guy gi caatu montagne xale yaa ngi noonu Moussa Guy gee ngi noonu di am lu muy gàbba tuflit taf ko ci dënd bi caatu montagne dox na jëm ci kawam caatu montagne Moussa gi xale yaa ngi noonu huitième combat de la soirée journée Assane Ndiaye production caatu montagne Moussa gi caatu montagne mbokk yi moo ñu woon ginnaaw Moussa Guy gi lañ jàkkaar lool Moussa Guy gee ngi demee wet mbokk yi mooy ndaamali caatu montagne mbokk yi booy xool moo xaw a sut tuuti caatu montagne Moussa Guy gi door na ko léegi droite waaye dalul Moussa Guy gee ngi dox ci kawam caatu montagne bal na ko jàpp na ngemb caxa bal na ko vite caatu montagne Moussa Guy gi daw na ñëw mu ëpp ko caxa bal caatu montagne Moussa Gouye Gui caatu montagne caatu montagne montagne lañ day dëkk montagne lañ dëkk sant yàlla rek mais combat bi dafa gaaw sant yàlla rek waaw sant yàlla rek waaw góor maa ngi leen di libéré man Cheikh Fall maa ngi leen di libéré sant yàlla rek. baal ñu baal ñu baal ñu baal ñu. waaw dama la ko dama la ko yow liggéey rek. waaw dañoo liggéey fer barke moom Seydou Fall. mais mais mais sa diggante. oui oui oui. bi mooy sama cinquième combat. quatre victoires benn défaite maa ngi ñaan yàlla yem sama def yàlla yem foofu. waaw maa ngi si ginnaaw papa sama papa rek maa ngi sama ginnaaw papa rek waaw dama liggéey dama liggéey